une minute du ma ko bëree laa la wax nii. billaahi. baax na bu baax nag. maanaam mat liggéey nga ko nuyu naa la. waa ziar nañu sonn. ñu gis nga ñëw ànd ak ki nga xam te ne mooy frontière. Euh, mu am ndog-ndog ndog-ndog dalee ko ci làmb boobaa ak léegi ñu gisoon génnoon na def sorti mais est-ce que affaire yi saafaraw na. waaw euh, kii si ñun la dalee euh, bëre. maa ko yoroon diggante moo xumbal la woon combat boobu grand combat bi euh, Feugeuleu moo ko doon bëri ak Bruce Lee Demba Diop defe naa boobu ba léegi mu ngi nii nu ciy ñaan ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ba si président de la république madame Faye Sall nu ngi koy ñaan ndimbal doonoo bëgg kii nu jàppale ngir yàlla rek ak yonente ba ñu jàppale ko mu wér mu ko média bu nekk dem nan fa nag média bu nekk dañ fa lu mu jàll dama bëgg ñu jàppale ko ngir yàlla ak yonente ba yëmbal la dëkk. que commencé woon na faju waaw commencé woon na faju fi mu nekk faju bi dafa métti. te moyens yi dafa day waar amul. doonoo ñaanoon président de la république ak Mayel Tay fal ak bépp volonté bu ci man ak bi Sène di diital làmb ji ak fi mu dëkk gox bi mu dëkk muy Baara muy Baara Baara muy maire yëmbal ñu ñaanal ko ñu ñu jàppale ko ngir yàlla ak yonente ba mu faju loolu rek lañ bëgg ci moom bëgguñu leneen mu faju rek lañ bëgg amul leneen luñ bëgg ci. faju bi naka lay demee day dem ay day def traitement wala. waaw traitement yi boo seet traitement yi dafa seer li nga ko war a fajal chaque jour rendez-vous yow massage rek dafa seer dafa seer mbër la woon bokk ci ñun bokk ci lépp bokk ci làmb di xale bu ndaw xale bu ndaw la chaque jour massage loolu moyen boobu amu ko seen seen pour mu pour mu am passe sa problème la ci ko bu dalee. diggante ma xumbal la woon. waaw diggante xumbal fekk wax naa ko sànq. billaay walaay waaw ak biir Sile lu leer laa la wax lu amul seede baaxul. daa ma kii nan ko jàppalee doomu dëkk bi la doomu Sénégal la kii si dëkk bi la dëkk am na ñoo xamante ne ñu ngi leen di jàppale defuñu dara billaay kii si doomu dëkk la xale bu ndaw la. mais CNG lan kii si làmb la ko dalee lii nan ko yàggal déclaré bu yàgg dana bëgg léegi seen média yi ñu jàllale ko ngir yàlla rek tax ngir yàlla tax ñu faj ko. soxla na mu dem Europe sax faju ku ci mën a jàpp bépp volonté bépp volonté bépp volonté bu ci mën a jàpp senegal mu jàpp ci ngir yàlla tax mu ngi nii massage rek moo ko dese ñu jàppale ko ngir yàlla rek tax kii mbër la woon maa ko jàngal bëre billaahi walaahi taala man lañ ko dénkoon man lañ ko dénkoon man nii sama loxo lañ ko joxoon kon na képp ku si man di def billaahi walaahi talaahi dama lay ñaan dama lay ñaanal soog yokkute kii dama bu may wax sama xol dafa sees ba mënu ma wax li may wax nii kii yaayam ak papaam man lañ ko joxoon ñii nag ñu si def lu nu man équipe bi ñu def lu nu man te équipe bi ay xale fa nekk mënuñ seen ginnaaw ñun ñeneen ñaan bon volonté yi ñoom jàppale ko ngir yàlla rek tax.